nan tàgg Ahmadul Lamin moom la nu may surul masuun xar baax la feese ba ni góoj asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tey jii yamoog alxamis tolloog la 15 février 2018 war a tolloog ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru wolof wi ñu nekk fii ci dëkk bu sell bu màgg bii di mbakke Kajoor ñu màggal gi nga xam ne moom lañ fi baaxoo amal di ko defal Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke ibnu Xaadim Rasul tey jii nag fas yéene loolu indil lépp loo xamante ni xew na fii ci màggal gi nga xam ne moo di màggalu Mbàkke Kajoor ñu fas yéene ànd ak yéen dugg ci biir loo xamante ni ay siyaar la ak ay kàddu yoo xamante ni ruuse na fi yoo xamante ni bàyyi ko fi yëpp dinañ leen ko jottali fas yéene ànd ak yéen ci seen site bi nga xam ne mooy sunuactu point com. أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانقضى ذكره لكالكال وجسدي أببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانقاد ذكره الأمين لكالكال وجسدي ناجيت زال أرسم هزيم بلوب ما دري نازيم ولياك نبي عزيم وسناني أنه سادي نبي تهدي الأهد قلبي يا رب بالمدد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قد في سفر خلي واهب بي بسفر مستهنيا هنينا فرد جنده في خلدي لم ينهني مبارز وفيل ربي بارز إبليس لا يبارز جند عزيز الأخدي لم ينهني من اغتيرت أو من لقلبه مرد وليأخذ في الخيرات ربي يا من لم يجهدي الله كانني بما يلقي زلالا سبيما غدا ولي قوتا بما خاد وخير قدي هدية العلم سقدي خير يلاهين ولي مدالي له البشر بجاي سيد البشر وليا يمنى نو نزل لم أنه ما لم يفيدي هلا من الله عليم مما يشاء من علوم وزبخيت لي بالقلوب منصرفا بسفدي ناجيت ربي الكريم بكتب ليس تهيم أنوارها وليروم أحمد خير سفادي الله رب العالمين صلى على الهادي الامين في الملاه المكملين عن روحنا والجسد فتهافت هل لم يرى خطوه دلن يرى لمن هافت الحياة سيارة سيدا المدير مبشري قد غاد خير المنزلين ليابي خير المرسلين وبسيها بالأمال خدمة خير البشر mbokk yi jërë ngeen jëf yaakaar naa ne dégg ngeen bu baax baax li nga xam ne moom lañ leen wan ci émage yi nga xam ne moo am ci màggal gi di siyaar yi nga xam ne am na fii ci dëkk bu sell bu màgg bi gis ngeen siyaar boobu nga xam ne Serigne Abdou Koumba Suuna biñ fa jógee tamit dem nañ fa li nga xam ne moo di kër Serigne Moustapha moom Serigne Sidil Mokhtar Mbacké foofu sax am na waxtaan woowu ngeen doon dégg foofu la doon amee ca salle ba mu di ministre bi nga xam ne moom la président Macky Sall yebal muy Mame Thierno Niang bi mu ñëwee wax na kàddu yu rafet a rafet ak tamit bis bi nga xam ne moo nekkoon ci sunu ginnaaw Serigne Sidi Mokhtar wàccoon liggéey bis boobu tamit tax na fàttalikuwaale nan fa bi mu noppee tamit sëriñ bi tontu na ko ci teewaayu sëriñ kàdduk sëriñ Cheikh Thioro mi nga xam ne moom moo yore woon porte parole njaboot sëñ Baara bi mu noppee tontu na kàddu yi rafet yoo xamante ni ci teewaayu gouverneur bi nga xam ne tamit moo nekk ak préfet bi ñoom ñëpp teewoon nañ ci kanam tuuti nag ñu joxaat leen daje ci yeneen i béréb ak yeneen jataay dara du leen ump ci seen site bi ngeen ànd ak moom ci màggal Mbàkke Kajoor 2018 asalaamaaleykum wa rahmatullah. moom la nu may surul ma suun xar baax la fee se ba ni guuj